Euh, voilà Aïda merci beaucoup pour la question hmm. Aïcha Thiam laa tudd ñu gën maa xamee ci euh, ñu ko maa xam ci série euh, infidèle ma incarné fa le rôle de Mariama hmm. comme ni nga ko waxee Mariama nag rôle boo xamante ne la incarné naa ko personnage la hmm. te jàpp naa ni peut-être joué naa ko ni ko sénégalais bëggee moo tax ñu xàmmee ma ci tey maa ngi infidèle ba tey saison de ñu ngi tournage ma intégré en même temps li di Yes Dakar li ñu fi indi tey li di série Mariama boobu xamante ni damay incarné foofu lii di euh, personnage yu Abibatu Abibatu nag comme ni nga ko waxee <laughs> bokkul ak euh, personnage yu Mariama Abibatu fii euh, c'est une femme au bu nekk ak jëkkëram bu am benn goro bu doy waar <laughs> boo xamante ni thème de de la société la dañ ko fiy tàmm di gis nga dëkk ak sa jëkkër ngeen di dund seen sutura nga gis sa goro jëkk jékki saa rek débarqué fa li ñëw foog ni que yow manqué woo leen dara et sa jëkkër lu mu liggéey yow la koy xëpp alors que xamul bi ngeen di dundee yéen ñaar naka ngeen di def seen sutura donc euh, mën naa ne daal te mu société rek euh, le lii di série Mariama Laal. c'est facile de changer de ah, mm-hmm. bon c'est facile li may wax rek mooy foo dem rek liggéey moo la fa yóbbu euh, série liggéey la comme liggéey yëpp parce que boo xoolee boo deme tournage dañ lay jox sa texte improvisé wuñu dara kenn ñëwul wax lu la neex en tant qu'acteur no dañ lay envoyé sa texte nga jàng say dialogue boo demee tournage nga def say dialogue normalement lépp loo wax rek la koo bindal nga daal di tourner sa séquence boo paree liggéey la tu rentres chez toi boo demee euh, beneen maison aussi dangay ngay jëlaat say texte rek nga defaat liñ la sant liñ lay fayee liñ la woowee mm-hmm. nga defa la même chose soo paree nga ñibbi liggéey la rek mm-hmm. mm-hmm. euh, est wane ko sa présentatrice bi nga mm-hmm. nekk dinañ ci ñëw ci kanam. Mm-hmm. nan ngeen di def ba ku nekk wutal ko heure am ba mën a respecté contrat bon euh, c'est pas facile nag question boobu moom c'est pas c'est facile du tout mais dafay am tuuti compréhension parce que adduna lépp loo gisee rek compréhension si baax euh, tey boo nekkee si ñaari production wala nga nekk si trois wala nekk si benn whatever euh, mën naa ne producteurs yi ñoo lay mën a comprendre benn côté parce que ñun acteurs yi li may wax rek liggéey la ñuy def suñu gagne-pain la te euh, producteur dañuy amee famille ñun tamit noonu la amee famille boo xamante ne dañu yaakaar ñun donc bu nekkee benn acteur dafa nekk ci ay production yu bëri man je me doit être un peu compréhensif côté boobu noonu déjà di lay teel a jox say texte wala di di teel a dafa planning semaine bi ne la tel jour da nga war a tourner tel jour da nga war a tourner même si euh, euh, benn côté côté boobu tamit bu nekkee mënul buñ la woowee tournage nga jéem a euh, négocier rek comme lépp négocier la nga décaler tournage bi après soo paree nga dem tournage bi yombul nag dafa métti <laughs> dafa métti métti comme ni nga koy waxee am na beneen liggéey boo xamante ni du lundi au vendredi je me lève à 4 heures du euh, mais bon euh, comme li may wax rek benn liggéey yombul te liggéey jaamu yàlla la te mooy suñu sutura aussi. est-ce que yéen mhm. tamit doon bu leen porter préjudice en mhm. tant qu'acteur wala bu limité juste que acteur la wala actrice la mhm. damay jouer mais li si concurrence bi. Mhm. <laughs> comme ni nga ko waxee rek euh, acteur wala actrice euh, ñun je pense que suñu liggéey la ñu war a gérer et concurrence boobu ngay wax sax euh, amaana peut-être mu am bu amee aussi c'est entre eux comme ni nga koy waxee te yaakaaruma tamit concurrence am na ndax ku nekk da ngay def sa liggéey te bokkuñu chemin ku nekk danga am sa ligne boo xamante ni mm. yow yaa ko moom et que bu ñuy concurrencer aussi yaakaaruma ñu mun ko def si acteurs yi. Ah, <laughs> loolu loolu mënul ñàkk non loolu <laughs> non loolu mënul ñàkk loolu mënul ñàkk fay bi moom loolu mënul ñàkk ñii dañuy gën a fay ñii fay tuuti <laughs> non non man moom man damaa nekk nit koo xamante ni quand je m'engage je m'engage su ma xasee ba ne waaw ma am fa lu ma metti ma gis fa lu ma ma gis fa lu ma neex je me suis engagée kenn forcé wu ma kenn sexalu ma lem donc euh, man maa jël sama engagement damay dem jusqu'au bout xanaa nga xëy na ma <laughs> tey soxlaatuma sa personnage et que na fa yem euh, sama sama sama philosophie mooy fépp fu ma dugg je vais sortir avec la tête haute incha allah. yow yow Aïcha est ce que mës nga dund loolu tam ci série infidèle la ñu mën a wax nga génn tamit gars yi xaw la indexé wala di la ay track wala ay commentaires yoo xam ne neexu la. bon comme li ma wax sànq samay début wax rek man euh, en tant que Aïcha Thiam man euh, quand je m'engage je m'engage tant que man maa jël sama décision def dara donc je le fais euh, avec avec le cœur te je le fais sans regret tey mën naa ne cinéma peut-être que du ma ne ñëpp xamuñu mais euh, sénégalais yi ñu ngi commencé di am benn mentalité boo xamante ni amuñu ko woon amaana avant avant ngay gis nit jouer benn rôle ñu jaawale personnage ak personne mais léegi les gens commencent à distinguer xam nañ personnage xàmmee nañ personne te man <laughs> jàpp naa ne boo tasek Aïcha Thiam en tant qu'elle doo ko ne yow yaa def yow yaa def lii même bu nekkee des fois mënul ñàkk tu vois des brebis galeuses mais man du ma du ma may nit xanaa sama ginnaaw mais sama kanam du ma may nit euh, loo xamante ni na nañu ak man di ma wax des choses yoo xamante ni que du ma du ma ko régler je me ñëw ci Aïcha sa sa rôle yow jigéen ñi bëgg nañu série yi nag cha jigéen ñi bëgg nañu série yi te pare nañu pour jouer da ngay gis yenn scène yoo xam ne pare dañ daal pour lépp pour dugg ci cinéma pour siw yow da nga ci dugg pour buzz. wala dugg ci pour ñu xam la lan moo la duggal ci cinéma ba nga ne toog nga ne man bëgg naa nekk actrice ba ba ba toll euh, du ma ne dama siy dugg pour ñu xam ma parce que maa ngi woon ci benn ligne boo xamante ni euh, amaana du ñu xam ma laa doon wër mais peut-être bu yàlla dogaloon ma si doon rampé naa dinañ ma xam ndax comme sànq maa ngi la koy juste journaliste de base def naa jamonoy LCS nekk naa aussi DTV et euh, yàlla jo oui journaliste chroniqueuse ñu ah, noonu voilà tey yàlla def na ma intégré Seneweb mais côté boobu su ma fa doon dem peut-être euh, nit yi dinañ ma woon xam ndànk-ndànk mais du buzz wala gis leen ma wala voyez moi moo tax ma dugg ci cinéma cinéma passion moo tax ma dugg si sànq maa ngi koy wax Thierno café avec bu mu doon daw <laughs> ay tout tànk lañ woon mais quand on voyait Lisa man Lisa macha allah moom je bu daan def ay scène am damay <laughs> bàyyi ba café avec jeex ma dem toog sama seetu man tamit ma koy toppandoo je faisais mes chichis mm. et tout ça donc euh, passion boobu day dem ba topp la ba nga màgg je me suis dit pourquoi pas ma lancer ma xool lan lay bi may intégré période Covid la woon période Covid ku ñu nekk xam na ni que euh, y avait pas de travail et que ñëpp dañ doon ennuyé wu seen biir kër yi euh, j'avais pas de du ma wax j'avais pas de boulot parce que maa ngi doon euh, maa ngi doon entreprendre maa ngi woon sama liggéey bopp et tout ça mais nekkul woon loo xamante ni dina woon dox tous les jours. dama ne euh, pourquoi pas ma jéem a foo noonu rek foo boobu nag du woon loo xamante ne dama si duggoon pour de bon pour dire mais foo boobu noonu dem na ba jox ma gën ma jox beneen passion boo xamante ni bëgg naa euh, ñu gën maa gis si monde cinéma bi incha allah. est-ce que yomboon na dugg bi intégration si cinéma bi. bon euh, jafewul vraiment jafewul moom jafewul waaw moom jafewul et bi ma tenté le coup rek yàlla ubbil na ma bunte. rôlu euh, Abibatou rôlu Mariama tey fan ngay séntu sa bopp en tant que jigéen ci cinéma bi parce que gis nañu léegi à l'extérieur ñu ngi commencé nag di leen mm. di jël seen seen seen kii mm. di def euh, di jël seen seen série yi di ko exporter yi tu mm. ñu ngi ñu ngi jéem a avancé cinéma bi léegi yow fan ngay bon cinéma bi comme ni ma ko waxee sànq bi nga ko xaalis may ree ma ni euh, peut-être am ñoo xamante ni xaalis comme ni nga ko waxee am ñoo xam ne buzz mais man en tant que Aïcha euh, vraiment beneen moom dama si liggéey business xaalis mais cinéma mën naa ne du xaalis moom si dugal passion la te passion boobu noonu fi may viser yemul Sénégal. donc euh, cinéma boo xamante ni boobu bëgg naa incha allah rabbi euh, may gën a comme instant si jàng laa toll <laughs> damay jàng ndànk-ndànk rek may jàng ba yàlla def su ma gënee dëgër incha allah euh, ñu gën maa xam daal ci cinéma bi partout dans le monde incha allah.